mbër la na fi Margaret victoire ma defe tam métti na neex na Margaret jël na roi des arènes naa ñu ma war man maa dese am ñu ma war a bëreel bu kon man mi nga xamante ni léeteeguma roi bi kon yaakaar naa kooku waruma gën a bëgg li muy def moom mu ne dafa daan sama mag man gëmuma loolu li ma gëm mooy man ak moom la man li ma gëm mooy kon ma dama war a tifee loolu yëpp teg ko kon ma ëmb seen amul benn ngëm-ngëm bu ma war a ëppale ci combat bi du benn benn ben tok bu toll sax ben bu buso du ko may. ni nañ sarax ni nañ hmm. c'est ça sa diggante ak Eumeu Sène est psychologie psychologiquement mentalement saa jëf pare nga pour affronter Eumeu Sène si la sa cadre bobu di wax nak gis nga lamb lo ci yàkkamte di nga ko gis waaw xena ñaari rafet la ci am te yàlla fa yem mais ñeneen ñi nga xamante ni tey raw nañ ma mun nañ maa rawee ne bëri nañu ay mbëri mag waaye duñ may daawee victoire mukk foofu laa ko mën a teg beneen bi ci des nag ndax gën naa ko wala gëm ma ko loolu moom incha allah rabbi dina leer la cinq ci kàttanu yàlla danga bëri dafa mën a contre attaque contre boo xam ne côté bagarre dina extraordinaire côté boobu noonu est ce que est ce que Sa Thiès mi ngi bu baax a baax bëri muy def ci Eumeu Sène ndaxte Eumeu Sène seen signature kuy ndax ñemewul sama tampon sama tampon daf koy déranger Eumeu Sène ne lañ koy yàgg di yebee buñ ko bàyyi na ñëwee noonu loolu noonu est ce que nekkul yéen ñaar da di dem ci biir parce que yaa ngi bàyyi xel mbir bi nga xam ne dafa pare ci waaw mooy li ñuy wax sànq rek a <laughs> laa fois man dama ne la képp ku ma jël nga def sa action ci sa biir action laay dindi jëliwaat continuer def sama action boobu man loolu yàlla man dama ko may fii xoolal benn mbër lañ fi jot bu dem ba benn benn instant nga ne kii mun déggee naa ci lii mu def bëriwul man li ma rëcc ci li ma génne ba daan ma seet fekk ko ci kon man maa gën a war a nekk day ko ci côté dama ne la contre attaque tête force suñu defet jël ko man di ma yegg fenn damay bëri ba daanu mais ñoom ñooñu noonu koo ci dokk benn bi ñu ñu ñu ñu jekkalee lay xool déedéet man dama bëri di xool suuf du ma bëri mbër di am lu may suur ci yow li nga gën a bëgg. ci waxtaan ak moom rawatina aussi bala am adversaire seen seen complice la ba tey ñu gis Tapha Tine récemment mu ay image yoo xam ne nii. dañuy gisee tey image yu Tapha Tine yi yéen a di am préparation xaw xawul deux jours nga woo Balla wax ko ko toll ci préparation ndax da waa ji mu toll nii macha allah. <laughs> waaw d'accord am na Moussa Fall. ñu ngi bëri moom di ko daan ñu daan ko ci état bu baax état boo xamante ne bu ñu paree duñ laam-laame kenn ci lenn waaw l'essentiel Balla mi ngi ci rukam li ñu gën a intéressé mooy vidéo bi seen. li ngi tudd ko mi ngi toog di liggéey kenn xamalu ko dara xamalu ñu soxla mooy bu yàlla defee jàmm mu ñu gisee jàmm continuer entraînement bu ñu demee nag bu simeeku ñu xool tafaatin lépp la liggéey na mais ñu xool Balla Gaye xam ne kii gisuñ ci moom léegi benn sikk état de forme plein mu bëri ak tafaatin daan ko te loolu la ñaan yàlla yàlla ko yàlla def. non image fokk ñu la image fokk ñu sa waay ah. <laughs> moom du dara jëmm jëmm moo gën a pour ànd ak waa. Balla lu wax sa wàccaay yow. combat man maa jël moom man la combat man soxlaawu ma mu conseillé ma soxlaawu ma la sa ma man xam ni may tëree man maa jël sama décision bopp. saa maa ngi nuyu di la kon kon mën nañu ñaanalante ah mais Sall balaa ñuy ñaanalante rek naa la laaj man. la waaw amul solo mu doon def li nga xam ne nii fi baal fi ëmma jaar ak say mag fi mu jaar ba ah mhm. est-ce que Salif xam na loolu ko ci bëre bi bi ci jiitu rek xamoon naa bi ci jiitu ba muy njëkk aj combat bi maa njëkk a sama mag na ko billaay seen bii dara jotu hmm. billaay wallaay nga ne dara jotu ma dara jotu seen seen ci fréquenté wu ma ngir toog ak moom déedéet mais comme suma dem entraînement dama koy gis mu fekk ma fa wala ma fekk ko fa gis na ni mi béré xamna ko maîtriser na ko bu baaxa baaxa baaxa a baax hmm. kon mom min baax xon sama mag ma gis ko tek sama ba do hmm. ma ne dina ma nax ku melni jey sen gejo wala la dama ko laaj bërki dem mu ne combat bobu amul luñ ci lam-lam Sa Thiès mo wara a def li mu war def dem yoon te mooy dëgg loolu la jey wax ndax ko koy defee te moy dëgg te moy dëgg Ah. man jii combat bi yërëm ma ci waaye bis topp laa ko yërëm. Ah, Wah, loolu nag moom laa lan ngay wax sa mbokk athlètes yi nga xam ne ay mbër lañ parce que dañu remarqué depuis deux mille ba départ ba tey même forme bi nga mën si comme ça bu ñëwee da ngay étudier ci wàllu doole kàttan te duñu dara bokk na ci ko départ ba seen bu leen di lan la ko may lan nga say morom yi waaw xam nga nak fi mo moderne préparer fi dafa métti ndax di nga gis mbeur yo xamé ni dañuy entraîner rek te amuñu sa ku leen jàppale seen temps de récupération sa amuñu ko té buñu waxé deug dëgg rek te yàlla tax li ci prép euh, mbeur bu wacc wala mbeur bu bëgg a mbeur bu ko bëggee boole métier dafa xaw a fiir parce que tay mëno xey fajaa dem entraînement mbeur lo ci am lu ma àndal baax na boobu mooy ñu wax dëgg café Touba nga ci lal wut xey amoo temps de récupération amoo coach mënoo jël sa xaalis dem fayee ko coach wala sax nit am benn xam-xam boo xamante ni mën na la ko dimbale amoo ko wala xamoo ko loolu tamit dafay naqari dund mais heureusement sama papa dama ko dama dama damay waxtaan ak sama papa lu bëri moom laa mës a toog mënuma bul mës sa jël poids ma ne ko waaw ma ne ko lan moo tax mënuma gis nga poids dafa di loo xamante ni baaxul ci doomu aadama benn jour lu ko baax na ma ne ko da ngay siisu da ngaa xam dama la dama la ëpp rek mais dama demoon France avance sama combat Boy Niang ba may dem maa ngi maa ngi yóbbu cent vingt huit kilos parce que boobu maa ngi dem entraînement rek sóoruma dara ba ma demee ak temps de récupération ma fa am ak deux deux deux séances yi ma leen def ma jëlaat fa poids bu baax su may dox may sonn man a xaaral ma toogaat déggante sama papa ma ne ko man de. mu ma ñaari kilo nga mën a ko nangami kilo mu ne ma lee nga xaaral ngaa def mu bu ko def dindi ko ma ne ko baax na yàlla ya def ñu yóbbu ma ci ben sal ba ma demee li fi dañ ma njëkk a dugal na ma nombre de poids bi ya ko mom nombre de poids bi bokku ci yow li gares da li mo gën ci yow boy préparer sa combat kenn ku ci net poids bu mu mën yow war nga am poids bo xamanteni ni nga koy préparer ci yooyu yëpp nag laa jël sukkandiku tënk ko teg sama ko mo ra chaque fois mën nga maa gis ma tuuti waaye doo mopp doole sax mën nga maa gis ma jeex mais du doon loo xamante ni li ma li ma li ma li ma la ci kanamam tamit ñun kenn du ko yàqal kenn du ko yàqal ñu ay yoonam kenn du ko baare ñooñu woo ñëpp ñëpp ak Eh, kilifa yi nekk déggoo yëpp yëpp a ñu ñëw jàppale xale bi tubaarikàlla macha ku nekk sa gox nga am te ku nekk sa gox ngay tiitaroo te du si am am ko teg yàlla na ci yàlla yóbbu jàmm la cinq yàlla na yàlla may ndam ndam lu a bi yàlla musal ñu a cat ak lamay yàlla na yàlla musal cat te a ngi yoon autorité yëpp ñu génn jàppale xale bi tubaarikàlla macha allah yàlla na ko yàlla na cat la cinq yàlla may ñu ndam jërë ngeen jëf di wo suma serigne ci abdou karim an ko ci wo bu baakha baakha ba diko talal sama loxo parce que man gëna yalla yonent bi sama wajur mom la yaakaar aussi nak di nuyu njabootu suñu babakar gi yëpp ndax man dama am ay famille ak Kor Ndiak ta Ndiaye mais Kor Ndiak mang koy wowat ndax monit xam na man xam naa wax dëgg yàlla moom it ba combat bi taxawee ba léegi bàyyiwul moom ak xaritam yëpp yi muy àndal aussi tamit euh, Lat Diop maa ngi ko ci woo Néné Tall maa ngi ko ci woo Aliou Sall maa ngi ko ci woo mais maa ngi woo ki nga xamante ne Moussa le maire Ahmed Aïdara Malick Gakou nag samay loxo rek laa yuut pour mu ñaanal ma maa ngi koy ñaanal nag li nga xamante ne ñàkk na ko yàlla may ko lu loolu ndax borom xol bu rafet la wax dëgg yàlla géejawaay moom ñàkkuñu ko ñu ñuy mën a dimbale di gërëm sama benn xarit bu dëkk fii tout pare bëggul ma tudd turam di gërëm Mbaye Touré Omar Baas waaw di nuyu aussi tamit Basirou Ka di ko woo ci ko mbaa bi di woo ki nga xamante ni mooy jibiloo jabel ñoom ñëpp maa ngi leen woo aussi tamit di woo ñeneen ñoo xamante ni xëy na temps bi mayuñu ko xoj nañu mais maa ngi nuyu ñëpp di woo sama famille papa saaxu saaxu yëpp teg ko ci loxo malal sama taw papa di ñaanal Balla Gaye ak école de Balla Gaye ak géejewaay yëpp yàlla na combat yi yomb ci ñoom ñoom Youssou ñëpp seen combat yàlla nañ yàlla may ndam ay gàkku ñeneen ak ñeneen mënuñoo lim ñëpp di ci woo si tamit sama famille papa yëpp waa Casamance Guinée Kolda géejewaay Kër Massar Kër Mbay Fall Radouz ba Tivaouane Peulh golf parcelle faja bi yëpp maa ngi leen di woo di remercier aussi sama xarit yi nga xamante nag samay nit yoo xam ne maa ak ñoom xam nga ñi sonn ci man loolu bëgguma la tudd seen tur ndax am na ñoo xamante ni ba ànd ak ñoom aajowul nit ñi xam leen mais daal l'essentiel li dox sa diggante ñoom rek ñaana leen yàlla suñu borom mais képp koo xamante ni taxaw nga di ma dimbale rek maa ngi lay sant bu baax a baax a baax képp ku ma tudd sa tur tamit nga comprendre ma ñep ñëpp Abdou Gueye ñom ñep ma ngi leen di sante di leen gërëm di nuyu sama yaay baaxa baax nak ñu ñaan yalla yalla bay ko fi di sante bu baaxa baaxa baax sama mak Ibrahima saxo di sante aussi tamit suñu soxna yi nga xamanteni ñoo na ci kër yi muy Buri euh, Awa Khadija di nuyu sama goro aussi tamit mo mi nga xamanteni jël ko fa ñaan aussi tamit ma ngi leen di sante sante bu baax baax a baax jërëjëf waaw waaw ETDR établissement Touba Darou Rahman ci liguey ay bâtiment lañu ko ragné liguey bu lool te am qualité lool ñu dëgmal nak liguey bu yees mbokk mi li travaux de réhabilitation du tribunal grande instance de Thiès ñu war ko défarat ba mu ñoŋ ci anam yi mu gëna a baaxee mbokk yi bu ñu jógewee fofu nak dañuy demaat ci benen travaux de réhabilitation ci tribunal bu grande instance bu Mbour défarat ko ba mu gëna a baax def ci ay étanchéité de dernière génération def ci peinture yi gën ci peinture yi ba nopi teg ko ci ay loxo yu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 ETDR, établissement Touba Darou Rahman, travaux de bâtiment, BDP, génie civil, fourniture de matériel, prestation de services ñun ñoo ci toog bu Si ñu soxlaa nag mën ngeen ci 77 575 50 25 wala 33 824 57 43 ETDR accessible pour ñëpp suñu adresse mi ngi fii ci Pikine ci technopole ci arène nationale villa numéro 406 ETDR moo lay aar sa bâtiment ba mu am durée de vie bu yàgg kon nag ji ETDR ndax nag moo fi ne